ñuy bàyyi la euh, temps nous exprimer ou développer en profondeur na euh, rapidement ñu euh, le président de l'ASC le professeur Arona Kanté voilà donc pour rappel également c'est un ferru du football ferru militant du sport de manière générale mais par ailleurs également nekk professeur d'éducation physique je pense que ci plateau bi heure bu Euh, ngeen dégg ci wàllu xam-xam li nga xamante ne moom lay étaler mhm. rien que pour euh, permettre suñu ay téléspectateurs voilà mu doon loo xamante ni dafay doon euh, lu favorable ci sportif yi professeur Kanté football historique bi boo ñu ci doon dikkal lan ngay teg ci table bi pour ñu mën ci ànd ak téléspectateurs yi. boof merci Mbaye vraiment kontaan naa trop si laaj bi parce que football moom dafa nekk loo xamante ne tey àddina bi yëpp. Mhm. ñoo ko bokk. Euh, nga may laaj nag question bu xaw a doy waar. bu jafe parce que tey tamit soo xoolee am na ñoo xamante ne vraiment xëy na ñoo doon yëpp placé pour wax mais am nañ ci xam-xam bu ndaw rek. boo xamante ne mun nañ ko fee sotti. waa TS am ci primeur ñeneen ñëpp tamit euh, jëfandiku si. di ñaan yàlla luñ ci wax rek tam mu nekk lu jub parce que xam borom xam-xam yaa ñuy seetaan. Euh, football dafa nekk tey sport boo xamante ne tey dans tous les pays du monde amul amul fu ñu ko pratiqué wul. loolu moom au moins c' est avéré dans tout ñoo koy pratiqué noonu la xawee am tamit. Euh, ben réalité bo xamantene tay dans l'histoire du football kenn mënul vanté wu ne man ma créer football ci man la mako ko inventé. Hmm. Euh, léegi nag ñu bëri dañ nan anglais yi ñoo inventé football lool moy nek deuxième point bo xamné dana ci ñëw. mais so jëlé d'après les archéologues hein, football euh, les Amériques fofu lañ ko gissé diganté ay Mexique Costa Rica Venezuela les Aztèques. ñooñu seen football sax dafa violent parce qu'il y avait deux équipes. Et l'Amérique latine quoi l'Amérique latine. Il faut que ko gën a gën a découvrirait. découvrir euh, eh, lu préciser tous les jeux sport de jeu collectif. c'est dans les Amériques au c'est avéré mais xam les Amériques et les Anglais sont des cousins mais football fu ko njëkk gisee ñu ne ñoo d'après les archéologues c'est en Chine au troisième siècle ñom ñoo ñëk def football bu ñuy wax. tutsu Amérique yaangi Asie. waaw ñu nga gis nga ñom ñoy def tutsu xam nga dañ lay wax ne fi lañ ko cosaanoo. Mm. mais football bi nu mu gën a comporté wu. Chinois yi ñoo ko njëkk ak ben modèle bu ñu wax tutsu. Mm. léegi na football bobu tamit c'était un peu violent. Mm. parce que jaxasoo la woon amoon na pàdde amon na mbëkkee amon na lu né ah après tutsu les foot chinois ont un peu évolué indi ben forme bu ñu wax coup de kudju kudju bi tam non la woon toutes les parties du corps amon na si.

am am tànk. am ah, am bopp am lépp quoi da nga mun ngaa jàpp bal bi daw mais tamit affaire karaté la woon c'était violent. Mm, waaw mun nañ la padd mun nañ la kii. Mm. Euh, ñu jógee est-ce que le rugby foofu lañ ko. suul euh, suul soo xoolee moom moog rugby benn la après si lañ ko gën a développé moo tax mais tànk bi day jëm kanam parce que soo xoolee rugby mm. euh, loxo bi passe bi. te tout toujours en retrait. Mm-hmm. mais fekkee tànk la bal bi mun na dem kanam. mais nag suul amul loolu ku jot bal bi mun ngaa daw. mais après suul après nag ñu wàcc ci côté italien yi italien créé lu ñuy wax le calcio florentin. Mm. le calcio florentin boobu moo topp italien yi ba léegi seen kii mooy lan mooy calcio florentin mun nañ am sax ñeenti équipe. ci lañ njëkk am supporter ci lañ njëkk am musique ñoom ñoo fi njëkk indi supporter indi musique di supporter seen ñoom ñoo moderniser affaire yi waaw daanaka ñoo ci gën a indi xumbaay boobu daal léegi ñoom calcio si soit mun na nekk ñaari équipe mun na nekk ñeenti équipe mun na nekk tam ñetti équipe léegi de telle sorte que benn équipe bi su daan yor bal ak beneen équipe bi beneen équipe bi da doon def benn mouvement d'ensemble bu rafet ci défense bi défense boobu moo leen topp parce que suñu la daan gagné ci calcio sax Florentin da nekk risé tant que amato victoire dañ lay ñaawal quoi moo tax italien cosaanu defence boobu hmm. daf leen topp ba léegi quoi après calcio Florentin nee nañ soo duggee grec indi nañ lu ñuy wax équiperios Mon football boobu tam gën a rugby rugby expérience après dans l'empire romain ñu ni aspartum aspartum da daan nekk ci ki roi yi tok mu nek tam lu violent lo xamantene vraiment bop yi dañ ci daan toj ak li ñu wax le kemari pour man na kemari mo gën a adopté wu ci football parce que pour le modèle kemari euh, football la bo xamné xam bal bi tu devais le garder en l'air le plus longtemps possible mooy lan te ñoom dañ dal sol seen tenue yoy seen anango yoy mm. tak seen ceinture ñaari équipe dañuy taxaw mm. légui équipe bu la gëna a jongle bi en l'air ku nekk da ngay taw ku ñëk daanu la ya perte kon xam nga fofu vraiment mm. technique sax mi ngi fa quoi bal bi c'était en l'air légui nak football té gis nga yooyu yëpp wax naa ko te dégguñu yoon anglais yi fofu c'est à dire que ni type de football yooyu yëpp jaar nañ fi nga xamantene anglais yi indi ñu football légui suñu xuusee football euh, soccer la tuddoon ok soccer. absolument parce que j'avais déjà le football américain. Ah. pour bañ ñu ko ci lañ indi soccer. Ah. mais au fur et à mesure muy dugg. Ah. mu ñew nak Angleterre. Mhm. boobu mooy nekk xam naa deuxième point bi. Euh, rapidement euh, anglais yi. lu ñu né eh, xalé yi xamné ñom ñoo ñu tax ñu naan ñom ñoo. créer football ñom ñoo créer football. waaw mën nañ né ñom ñoo ko réinventer ñoo ko réglementer vraiment ñoo ci tek ay règles. yoo xamante ne tey après dañ ciy adopté ñëpp d'accord euh, ci premier bi. mooy kan lan la woon anglais yi kenn mënu leen gën ci fool mooy Goodyear Charles Charles Goodyear lañ tuddoon moo njëkk créé ballon forme sphérique bi mu ne léegi ball yi ngeen di créé baaxatu dañu jël bal ñu créé ko ci benn forme sphérique en caoutchouc tax ndax temps mu njëkk ba ay peau de vessie ay vessie de chamon jël benn tissu bu dëgër ñuux si ça dépend bal yi bal yi mënoon na daan tax peese ay 2 kilos C'est le ci loi ci le Charles Goodyear ñëw ballon en caoutchouc def ko forme sphérique bi nga xamné ba légui 410 grammes Il a utilisé ba tay ji FIFA di utiliser mm. entre 310 350 grammes ak un mm. modèle technologique. Mm. en 1855 la créé ballon. boobu L'événement du football c'est presque en 1863 avec les collèges de Cambridge lolo tax ñu né anglais kenn mënu leen ci football collège de Cambridge buñ dan football professeur yi toog ne non lii dafa jaxasoo toog. Mm. il faut qu'on crée les règles. Mm. si lañ crée les règles nag de de les lois de Cambridge les lois de Cambridge sept ans après Sheffield Rudd créé tam ay règles mm. mais suñuy ñuy daje seen biir dañuy gis ne règles yi bokkul. ñu ne non lii tam problème la quoi. si la nag ki ñuy wax le père du football. génn mooy Ebenezer Ebenezer Cobb ah Morley c' est un anglais boo xamante ne il était. Il faisait tous les disciplines moo njëkk créé football moo formé woon Barnes Club nekk fa capitaine euh, léegi nag moom bu mu génnee moo à bind Mais il faut que ñu daje ñu xool nan la ñu war a réglementer football bi si le bind en 1863 les 13 lois yi ngay dégg du football. C'était en 1863. mo après le jugé 13 dem 17. après le 13 après on amélioré ba 17. mais les 13 premières lois. mom hmm. Ebenezer mom moko créé Ebenezer Cop. 1863 1863. 1863 bob si le fa FA la fédération anglaise de football. Ebenezer moom. FA Cup bi ñuy voilà moi FA Cup ñu bari ñu xam nañ FA Cup. en 1872. Ebenezer C'est ça ya FA Cup. en 1872. Mm. Ebenezer mm. en tant que président parce qu'en 1863 il était le secrétaire général. Mm. mais entre 1867 et 1874 il était le président de FA. fédération anglaise de football. légui

continuer na bàyyi na ci parce que moom da doon def régate aviron da doon def sport da doon def chasse nee nañ vraiment un sportif de hockey. il est il est né en 1831 dès en 1924. et xam nga Ebenezer tax grand il avait quatre frères. Hum. une sœur. Hum. Euh, quatre frères yi sërëm yi ñëpp kenn amu ci doom moom bu mu deewee la lii ñoom arrêté mooy c'est que dire que tey kenn mënul ne sama maam moo bind lii dafa mel ni yàlla day baaxal affaire yi quoi les treize depuis 1885 ñun su la di ko améliorer kon c'est que dire que moo tax ñu ne anglais yi hmm. si la championnat yi nag commencé foofu hmm. petit à parce que réunion yi daan tàng trop il paraît que hmm. parce que dafa amoon lu ñuy wax les hackers ñoo xamante porter la ballon di daw ak moom xam nga kon ñu ci lañ créé football moo tax Ebenezer moom la ñuy wax euh, le père du football euh, mun nañ mondial ah moom moom moom vraiment ci la ci la créer loolu créé championnat Angleterre affaire yi commencé daw moo anglais yi ñoo créer championnat njëkk fi créé tournoi coupe bo xamanté da ngay am trophée nit ñi yëkëti ko moderniser football vraiment mm. toutes les règles tay ñom si anglais la jóge lolo tax ñu né vraiment mm. anglais yi ñoo créé football mm. Ebenezer mom il est le père fondateur du football maintenant après Ebenezer le football c'est ma danelé fofu rek c'est beaucoup répandu dans le monde et en 1904 le français Guérin. S'il a convoqué d'autres nations comme l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique. s'il a créé la FIFA la hein, fédération internationale de football association. nous euh, créé ko. de 1904 après après la Grande Guerre. Euh, xam nga rek diganté yooyu guerre la 1914 14 18. le Gilles Jules Rimet ñëw. créé ah, la nañ créé coupe du monde en 1930. après jël ko. après y a eu une pause la guerre après c'est le Jules Rimet ñëw. Mm. Jules Rimet tam lu mu ci vol dafa bëri. en hommage à Jules Rimet coupe du monde bi ñu tuddee ko Jules Rimet. le trophée Jules Rimet le trophée Jules Rimet. après ba temps yooyu ay quatre ñooy bokk 5 euh, après nag si lañ ko à élargir ndànk-ndànk euh, muy muy dem. kon football mun nañ ne à peu près euh, loolu mooy cosaanam. ñu xam ne en au troisième siècle. Mm-hmm. Chine moo ko njëkk football ak benn sport bu ñuy tout Tutsu. Mm-hmm. après y a eu beaucoup de football comme Kemari. Mm-hmm. Especarios La Soul. après nag anglais yi jël ko vraiment moderniser comme moom. ñu ne les anglais vraiment ils ont créé le football. Eh Ebenezer c'est le père du football. après Ebenezer vraiment euh, anglais Lolo nous tax tam ñu di am envie de ñuy parce que lu ñu def ci football dafa bari ba nga xamantene Et sur le plan mondial. il fallait que nous gagne quelque chose. maintenant à part de 1900. 30 euh, 1950 si la coupe du monde a commencé. Hmm. je pense que beneen yoon su à partir de 60 ñu dugg seet nan la. Afrique Afrique Afrique wax Égypte fi Sénégal nan la hmm. duggee ci football. ñu ah. danañ ci ñëwaat je pense que nous dinañ ci ñëw ci euh, nos prochain numéro en tout cas toutes nos félicitations ça mérite des applaudissements <laughs> voilà en tout cas. je pense que voilà voilà top top top professeur Arona Kanté ci. Euh, jangat bi nga xamante donc defal nañu ko ci l'historique euh, du football nga xamante aujourd'hui c'est le sport roi au plan mondial euh, le sport numéro un donc wax nañu source bi li nga xamante donc mom motax tay nit ñi diko ko pratiquer mm-hmm. dinañ ñëw également prochaine fois ci deuxième partie bi deuxième et dernière partie pour mm-hmm. comprendre véritablement ginnaaw Amérique latine Asie en passant par l'Europe nan lañ def nga le continent en Afrique euh, wax nañ égyptiens yi fi dugal mm. am na yeneen sources wax aussi tamit mm. euh, <laughs> voilà am na ci côté yooyu fanen fu mu jaaree mm. l'un dans l'autre je pense que le professeur Kanté dinañ ci andil ay éclaircissement pour permettre euh, véritablement ñi nga xamante donc ñom ñoo xamul won l'historique du football ñu mën comprendre mbiri fak fan la soqee quoi en tout cas toutes nos félicitations et merci beaucoup professeur Aaron Kanté ci rubrique bu am solo bobé